بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جديد بك تالبي إنجلين ديني باه باه ديني سيارة أه، دين حملني وغران فريشي أحمد بن خادم الرسول انترناسيونال Euh, ñoo defoon délégation tey ñëw fii seet si waa Masalikul Jinaan ci njiital jëwrin alhaaji Mbàkki Fay ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp sëñ Cheikh Ball Sam sëñ Abdou Khadir Fall sëñ euh, sëñ Ali Wañ ak mboolem ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi fii ci Masalik euh, ñu ñëwoon tey nag ngir waxtaan ak ñoom ci événement bu am solo bi nga xam ne moom la Grand Prix bi di waajal muy journée de sensibilisation et de information boo xam ne bëgg nañ koo amal fii ci Masaalikul Jinaan ku ne xam na Masaalik li mu représenté ci yoonu murit ak li mu représenté ci lislaam ñu fopp xew-xew bu am solo andi ko fii fas ko fi yéene amale waxtaan ci ak jëwrin mu jox ci ndigal mboolem ñi nga xam ne ñooy ay collaborateur am ñoom la àndal liggéey bi jox na leen digal ci ñu ànd ak ñun euh, ci cérémonie boobu ba nga xam ne dinañ ko amee ni nga xam ne noonu lañ ko bëgg alhamdulilah tey nag ñu doon waxtaan ak ñoom ci taxawaay boobu ak organisation boobu nan lañ ko war a euh, doxale yàlla dogal na waxtaan wi macha allah juboo nañ ci kàddu yi tënk nañ ko ci euh, ay réunion yu ñu war a amalaat ngir dugg ci yenn détails yi waaye li ci am solo rek mooy Masalik ubbi na ay buntam Euh, ñi fi nekk itam euh, yaatal nañ ñi nga xam ne ñoo war a ñëw ngir xam ne euh, lii ñu fiy def mooy li nga xam ne moom la barab bi yellool ndax barabu Serigne Touba kat bu ñu ko waxee ñu ni alxuraan lañ fay jàng Serigne Touba lañ fay waxtaanee ak alxuraan ay gone yi mokkal alxuraan lañ fay teral loola ñoom wax dëgg yàlla def nañ seen warugar kon nag waa Grand Prix képp ku ci bokk fu waaye mën a nekk ñu jóg takk bu baax a baax ba nga xam ne. Euh, cérémonie boobu ni euh, mu am ni nga xam ne noonu la war a amee réussite bi nga xam ne moom la yellool Serigne Touba ak dayo bi nga xam ne moom la ko yàlla jox ñu boole ko alxuraan tudde ko ko ah ku ne xam na ne xew-xew boobu am na dayo bu rëy rëy boo xam ne ñi ko yëkkati am nañu aw sas kon nag nañu góor góor lu taxaw bu baax a baax a baax xam ne daal lu ci manquéte ci ñun la waaye waa Masaalik moom seen jaan wàcc na da ubbi nañ seen bunt nongu nañoo dalal gan ñi mboolem loo xam am nañ ko expérience xam itam partagé nañ ko ak ñun kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax tàmbalee ko ci jëwrin ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla xew-xew bi ñu dugg ci ci jàmm ak salaam te génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu am ci ndaw ndam loo xam ne kawe na suñu jot suñu lépp te lépp nag sëriñ bi nangul na ko ndax moom lañ ciy liggéeyal kon Cheikh Abdou Khadir bisimilah. donc salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ko tàmbalee di ñaanal sëñ Muntaxa di ñaan yàlla mu yàgg fi te te wér di am ay kàddu cant rek ci jotaay bi ak euh, seen ñëw gi fii ndax ni ko waxee rek mi ngeen ñëwee ba waxtaan ak jëwrin Mbackiou si lañu jox ndigal ne nañoo ànd ak yéen ci liggéey bi fexe ba bés boobu nga xamante ne yéen a ngi ko jagle alxuraan te tuddee ko sëñ bi ñu fexé bes bobu ngeen amé ko ni ngeen ko bëggé rek ma nga xamante ne ci walu organisation bi ñu and ko yéen ba ngeen mëna pek organisation bi ba aduna bëpp xamné ne ngeen ko fo xamante fu am solo la fu am taxaway ci yoonu mourid la waye fu am taxaway ci diiné la ndax ni nga ko waxé masalik. masalik moom loolu ci mooy ci objectif première am bu ñu jógee ci wàllu julli julli euh, di fi def ay activité yoo xamante ne day jëmmal alxuraan day jëmbal yoon wi di jëmmal liggéeyu sëñ bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy gàmm yi ñu fiy def donc ci taxawaay boobu rek la am ba nga xamante ne dañ ciy sant yàlla bu ngeen jëlee activité bu toll nii mais xalaatu leen fenn fu dul ñëw defee ko masaalikul naan kon loolu ñu ngi leen ci sant ci turu jëwrin Mbackiou Faye waaye ci turu également imaam Basirou Lo ak euh, kilifa masaali yi nga xamante ne buñ ci tuddee alaaji Samba jaw tudd ci sëñ Cheikh Balla Samb ak euh, sëñ Ali Wagne ak euh, sëñ Modou Mbaye Samb danaka tudd na ñepp rek ndax ñoy ñoy kilifa yi ñom ñoy suñu kilifa ba nga xamantene inshallah allah ni nga ko waxe donc euh réunion de prise de contact la won bo xamantene ñaari structure yi euh, ñoo doon waxtaan ngir bu fi jógee tek maintenant commission yi ba nga xamante ne ci wàll yi nga ne jëm ci euh organisation bi jëm ci walu collation jël jëm ci walu hébergement jëm ci walu restauration ak ci walu sécurité bi ñu fexé ba jël vraiment. Euh, lepp li nga xamantene dafa jëm ci walu yoyé ñiko sekk mëna waxtaan ba nga xamantene buñ ci joggé rek bu bëss ba képp ku nekk li nga wara def boko défé rek organisation bi mëna jaar yoon donc lolu dal, mo doon solo waxtaan bi tay ñuy ñu leen di sante té ni nga ko waxé rek ñuy ñaan Yalla ñu ñu am ci ndam ndam ndam ndam lo xamantene dal eh, dina doon ndamu señ bi waye dina doon ndamu l'islam waaw sant nañ leen bu baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmani rahim alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء